asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare euh, tey nag dañu daje woon fii euh, ngir benn ndaje boo xam ne bii moo ñu fa dajale woon muy amicale des anciens de lecole école Michel Legrand ñu gën ko xam ci école brigadier chef Mankan Diabaté bu ñu gëjee gisante léegi ñi mat na vingt ans ñi mat na quinze ans tey nag ñu daje fi waaye lu jiitu loolu mois ci ginnaaw wala six mois. daan nañ nekk ci benn plateforme groupe whatsapp daan ci waxtaan euh, waxtaan woowu nag tey moo jur ndaje bi euh, bu ñu fi dajee tey suñu première réunion ñu def benn plan d'action boo xam ne bii bu am solo la mu jëm ci lépp luy dajale mboolem koo xam ne yaa ngi jàngee école Michel Legrand ñu xam la ak ñu ñàkk laa xam. ñu fas yéene daje ci plateforme boobu ngir weccante ci ay xalaat waaye également ngir fexe nuñ ci jëflante di demalante di dikkalante loolu nag ci li ci jiitu ci suñuy objectif moo ñu fexe ba barab bi nga xam ne fa lañ bàyyi ko nu ñuy mën a def ba saa su nekk bu at mi ñëwee ñu seet yan jumtukaay wala yan moyen la ñu mën a apporter sunu école beneen bi ci des nag ñu xam ne ñun suñu biir ginnaaw loolu ñu am nañ war nañ demalante war nañ dikkalante kenn ku nekk xam sa kër morom xam li dund loolu moo gën a tax jóg euh, amical bi euh, li ñu a teg nag mooy ñu fexe ba sensibiliser sunu mbokk yëpp ñu nekk ci groupe whatsapp bi ak ñu ñuy dégg à travers télé bi fexe ba kenn ku nekk ci ñoom jokk ci ñun bokk ci li nga xam ne mooy amicale des anciens de l' école Michel Legrand nga jënd carte membre à 2000 francs adhéré ci li nga xam ne mooy amicale bi bu ko defee fal nañu. benn bureau boo xam ne bi incha allah rabbi ñoom ñoo koy diriger euh, ma doy leen vraiment ñoom ñu jël lépp ne ma euh, présidence bi mën nga ko jël jiite ko vraiment loolu ma leen ci remercier bu baax parce que defe naa ni am na ci ñoo xam ne ba mu leen gëjee gis ak nag ni yàgg na loolu confiance la ak gëm-gëm boo xam ne am nañ ko waaye également ñu far mbooleem bànqaas yi xam ne ñooy nekk ci wàllu bureau ñu fal ko fal secrétaire général fal trésorier fal commission commissaire aux comptes fal coordonnateur général fal président commission organisation muy Alain nga xam ne saa su nekk mi ngi dox ci yitte yoo xam ne amicale bi pour mën dajaloo loolu daal dañ ko doon def rek grosso Euh, le secteur général mi ngi fi Abdou Khadre dëkk ba dixième macha allah ku ne gis na ko sunu mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew ku ci benn ne Babacar Diallo ngi fi teew Ahmed Diaw mi ngi fi teew Talla Ndiaye mi ngi fi teew Marème également bi nga xam ne moom moo nekk vice présidente topp ci man moom it mi ngi fi teew Awa Diop moom moo nekk trésorier bi nga xam ne moom moo yor. Euh, li nga xam ne mooy koppar yi waaye Pape Ndiaye mi nga xam ne moom mooy chargé de communication mook Ahmed ñoo ci nekk euh, bu ko defee Ablaye Niang aussi comme li mu doon wax sànq ñun ñëpp ay adjoint lañu kon loolu ñoo fi daje tey mais ñi fi daje nag dañoo remplacer ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe WhatsApp bi yëpp waaye ñi ngi lancé message ni lii defuñu ko pour clan defuñu ko pour daal dañ ko def ngir gën a boole suñuy doole ngir gën a xamante ngir gën a xam ne fañ bàyyi muy école ba kenn ku nekk yaa ngi sa yitte di liggéey amaana ñii ñi ngi kon na ci bi di jàngale ñi ngi ci école yi ba léegi mais ñii ñi ngi ci yeneen domaine di ci liggéey kenn ku nekk fa la yàlla wërsëgal nga nekk fa di bay sawaar kon nag ñi ngi tàllal loxo képp koo xam ne kii yaa ngi dégg suñu kàddu rek te jàngee ci école bi rek ñi ngi lay tàllal loxo képp koo xam ne bëgg na ci bokk aussi mën na woote ci suñuy numéro téléphone mooy 77 226 27 21 waaye numéro trésorier bi incha allah rabbi dinañ ko affiché moom moo yor lépp lu jëm ci jaayum incha allah rabbi nga fexe ba amical bi ibbil na ñëpp seeni bunt nag ñi njëkk a ñëw ak ñu njëkkoon a ñëw ak ñu mujjee ñëw ñëpp bàyyiwuñu kenn kon ñu ngi sant di gërëm mboolem ñi nga xam ne teew nañ fi tey teewaaleel fi ñeneen ñi nga xam ne amoon nañ yéenay teew te suñu joram mooy leen ñu am jot gi tey xëy na beneen yoon war nañ ci mën a euh, teew te incha allah rabbi euh, réunion yi dañ ko bëgg di décentraliser di ko yóbbu incha allah kenn ku nekk sa kër ñu yóbbu la fekk ko sa famille xam ne yow ñi nga jàngandool école ñii la kon loolu daal bokk na ci li nga xam ne tax nañu daje fi tey incha allah bu ñu fi jógee communication bi dinañ ko jàllale fépp fu ñu ko war a jàllalee ba ku war a jot rek mu jot ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.